waaw pousse leen bu pousse pare yow la mu doon doon. naka la. beer na la. waaw loxo yi laa beer. ok nee naa kay ak policier bi filmé. ok ni nga ko jëlee. nañu ci berne bi gis nañu di joxe rek waaw xaaral ma laaj la plat bi nga joxe nii lan nga si yëg waaw mbégte lu lan lañu wax ci kuy day joxe ñam dafa ci yaa ngi ci benn bi di defar seeni néeg waaw Okay, I'm yëpp ay cër la yoo xamante ne daan ko ko ay ndeeti fii waaw ku rek tàbbi ci ñëpp Yeah, yeah, yeah. la mel ni camion bi tamit yëpp ci ber ndey la ñu ngi nii di joxe ndox yi waaw gaa yaa ngi ndekki camion baa ngi taxaw di leen séddale ndox yu sedd yi waaw yëpp Jannatul la xewee soxna si maa ngi ziar bañ yëg-yëg nga ci am ak la nga siy sentir ci bisu màggal Serigne Touba bii wax rek ah. li may wax wax naa ko kay ba pare. ah boo koy def lan ngay yëg sa biir xol. Hmm. mais maanaam sa xol la ciy neex la fekk nga jox nit ki ñam.